happy new year. Wa I wish you the same. Mang leen a nuyu. Kena ku nek sa tour ak sa santa. wax nit yow yaay kan Fodebe Dofin ñuy seetaan. man big the biggest politician Dahaba man la. Wow, anyway uh, li ada ak ciosan la. te li kaf ak ree rek la. Fon rek la. Wow, society yeb geena nañ. Ekumba ba nañ. Odile geena nañ. Omo jassa geena nañ. Gonsot génn nañ Mitis génn nañ Midland génn nañ ah Ijasa génn nañ ah Igi boo demee Serekunda Igi Rogo ñu fa ñu ngaa toj foofu noonu yéno know kon nga xam ne lii euh, fond la xeex amu fi xuloo amu si kan ak si suba gisoon nañ leen tuuti Gonsot. demee noonu. non Gonsot suñ xaleel lañ. waaye ah, dañ leen a diir mbaga. déedéet Gonsot duñ ñu dee mbaga ah ñi dee di xam nga affaire si compétition la compétition la dafa mel ni yow tey nga war a dem xew bu mag du dëgg nga war dem xew boo xam ne sa moroom yëpp faa nekk sa moroom yi jéeg yëpp faa nekk xam nga doo sol sagar foog nga sol loo xam at least dinañ ne diw solu na so noonu la mel Ecoumba euh, Ba society la society boo xam ne euh, ñu ngi ko fom in 1967 fekka man judooguma Ecoumba Ba man dama judu fekka Ecoumba Ba Dogomoro la gaay njëkk a waaw ñu ñëw ceeñtu Ecoumba euh, Ba so tey ñu ngi nii ñoo génnee si bu two o'clock bi bu two o'clock bi ñu ngi koo génnee si six o'clock affaire si pétard bi mooy soos bi mooy jumbo bi mooy jumbo bi. su bi dina wàcc. aaj bi dafa wàccatu zéro. tey ñëpp ku nekk. ñaata koppar ngeen nar a génnee mu ngi génn bu ees six o'clock ñu ngi génnee bu ees te buñ génnee rek dañoo dem si aaj bi. firework yi di ngeen gis firework boo xamne musu len ko gis euh, ma nge ngi comme lima ma ci si Christmas bi dina ko repeatat your excellency the president of the republic of the Gambia Alhaji Adama Mamadou baro Ya sa njobot yep maa ngi a wis a happy new year di la ñaanal yalla yan na en bi oyof sa bopa bi yan la yalla musal ci mbagn mu nuro soppe waye lima la ñaan moy ya sa government ngeen duggal ci seen loxo parce que lii set soo seetloo tey Banjul mu nga ci zéro. dañ gis président euh, former président bi Yaya daf daa mën si loxoom ak yooyu noonu. Euh, waaye gisaguñ Barrow def loolu nu fa demee. yéen tey ba xam nga non government bi def nañ si loxo dafa am fu ma bugg a clarifier rek pour government bi xam ko government bi melul ne government bi defuñ euh, defuñ seen loxo dugal nañ dugal nañ si loxo. ba pare secondly yaa ngi am ah, Makati on the ah, on the fourth ñu ngi celebrate two two hundred years of Makati understand nga naa dinañ am about three to four head of state su war a ñëw yuñ comme faama goon so yooyu yëpp ah, government su du doon government parce que yooyu musuta am Makati musu ñoo celebrate seen two hundred years ñu ngi ko soog a celebrate amutoon nguuri nguuri nguuri Jawara amutoon nguuri Yaaya Jammeh mu ngi soga ada am nguri Adama Baro kon Adama Baro government bi def nañ jéego si euh, ada ak cosaan bi leena rek la bëgg clarify pour ñu ñu xam ko leena rek si ada bi moom moo dee te waruta dé moy fanar, fanar, fanar dafa wara dé ki lool rek lay ñaan government bi parce que tay council bi suñ sampé 40 fanar, ñu sponsor ko wa Banjul 40 fanal at least 20 Serekunda 20 bir Banjul fanaa dafa dekkiwaat du dëgg so kon ma ngay ñaan government yi Adama baro ñu duggal seen loxo ñu dekkil fanar fanaar dafa neex su ko defé ñëpp jébali seen fanar yi Adama baro jébali seen fanar ñi jébali seen fanar yi yaay Adama baro ñi jébali seen fanar yi jabari Adama baro yi ah ambiance rek su ko defé Makati Square neex du dega ah naka naka nit yi compared to last year nit yu bari dañ wax ne eh, gisuñ nit yi génn dafa xala wéet ñi tukki nañ ñi lii nañ naka non déedéet daay lele laawo xaarabe ñi génn six o'clock odi la génn fisara kenn du fa xëcc ñëpp ñëw nañ ñëpp ñëw nañ ah di ñaanal yàlla ñi nga xam ne fekkee ko yal na leen suuf seedee ñi mi nga xam ne fekkee nañ ko ak waa diaspora yi ñu ngi leen a gërëm di sant parce que tey amul benn society bu fi nekk te wa diaspora bi si dugal ci seen loxo ñu ngi leen gërëm bu baax waa diaspora bi képp koo xam ne yaa ngi dégg suma wax bi ñu ngi leen a gërëm di leen sant. ma bay ma bay ñooy jël di bees. waaw fu mu nekk si deebul bii génn si da ngaa ne mooy daxa bi bi suba te bii six o'clock di nga ne moo gën a two o'clock. kon o'clock nañ ko devil devil two o'clock bi mooy ñëw génn si mooy ñëw génn si den su ko defee seven o'clock ah society yëpp dem si seen dem borole si seen kër yi den su ko defee ñu stand by pour play ak boobi ak mooy egere eh, bi understand nga su ko defee fireworks si door odile humbal fii ekumba ba humbal fii gon gon sot humbal fii Odile ñu ngi si aaj bi Gonsoot ñu ngi Independence Drive Odile ñu ngi fii naka la tuddaati Figeral Omo Jasa ñu ngi Figeral ona saanga lima min ah Midland ñoom itam ñu ngi Figeral kon tey fii fii lal yi doy nañ tey kenn du nelaw bu kenn nelaw tey Banjul dañ koo yóbbutu zéro lal yëpp tuur nañ fa ndox soxluñ dara tey loo dégga xontin la waaye nag du ma waxte gërëmuma nag suma ay nit ñoom di Gambia inspector general of police maa ngi koo gërëm maa ngi gërëm Yankuba Daabo man du ma seen morom du ma wax te du ma gërëm maa ngi koy maa ngi gërëm Yankuba Daabo jiyaar maa ngi gërëm waa Banjul spécially spécially à kilifa Odile kilifa Ekumba Bay maa ngi leen a gërëm kenn ku nekk sa ak sa santa li ko dooree si ñoom Mbaye Guèye ñoom Alpha Diallo ñëpp maa ngi leen a gërëm di leen sant ñoom ñëpp di leen wax ah yan nañ ko fekkee déwén ñoom ñëpp maa leen a gërëm di leen santa ñi nga xam ne dépasse nañ si maa ngi leen a gërëm ñoom ñëpp di leen santa di leen wax ne ah mbir mi neex na lii foon rek la parce que lii once in ne year lañ ko dee am fu mu nekk nii foog naa deebul baa ngee ñoo génn si deebul baa ngee ñoo génn si